waaye examen yëpp ñu ngi koy def daanaka BFM léegi mu léegi mu jeex def nañu CFE def nañu entrée en sixième def nañu aussi euh, bac euh, di wax nag ni résultat ren yi moo gën euh, at yi weesu am na nag du tax résultat yooyu ne xëy na dañoo yombal état bi dafa yombal épreuve yi pour que résultat yi mën a baax may loolu aussi wax ko damaa defee nii à la limite sax mooy saaga sa say collègue parce que damaa xamul état bi naka lay duggee fi ñuy corriger pour wax ni na ngeen na ngeen na ngeen indulgent euh, joxe ay notes yoo xamante ni bii wala boog euh, état bi naka lay def pour alléger épreuve te ki ko wax aussi amul qualité boobu pour wax ko parce que pour affaire euh, saytu élève dañ koy jàng métier la donc il faut nga xam. li ñuy wax technique d'évaluation système d'évaluation waaye aussi nga def de doximologie mais bu fekkente yooyu yëpp defoo ko yow professeur rek nga euh, donc sa matière rek nga mën a xam euh, donc même sa matière boobu sax bu ñu xooloon yow di ngay évaluer mën nañ ko évaluer waat donc kon yu mel noonu da nga ko war a moytu ndax nekkul ay kàddu yoo xamante ne bi rafet na ci effort yi nga xam ne état bi nga koy def parents yi di ko def jàngalekat yi euh, di ko def ak élèves yi xam nga. wax nii euh, parce que euh, dafa amoon rupture te rupture bi mu amee mais wax dëgg yàlla ministère bi taxaw na euh, def apprendre à la maison ubbi ay site internet ubbi kii waxtaan rajo rajo yi ubbi télé def ak rajo communautaire yi ñi ñi am ñu mënul am loolu mu yóbbu leen ay support ay cours su support physique yooyu yëpp ministère bi def ko waaw yow nga taxaw di loolu yëpp amul. ensuite ci ab examen bu fekkee dañoo organiser examen ñi ëpp ci examen bi échoué. mais on wax ne examen boobu dafa yomb dañu waxante dëgg on est à de cinquante pour cent dañu ne <laughs> examen bi dafa yomb mais loolu loolu wax ko yenn yenn yenn dëgg-dëgg yenwul maanaam donc wax Sénégal yi nii bagu Sénégal bi nag amul kenn ku ko mën a yàq garab.